mais également bu ñu mayee kattan ñu mën a ñëw bokk ak yéen bis bu tedd bi bisu màgg bi gannaaw bu ñu santee suñu borom ba pare dañuy jël suñu yeneen kàddu cant ak kàddu nuyoo jëmale ko ci xalif général bi ci dëkk bi bu ko ñaan suñu borom boole la ci tey dañ koy sant suñu borom bi ko ko gërëme waaye ma yëkkatiwaat kàddu sant ak nuyoo jëmale ko ci monsieur le maire mu ñu dalal ci dëkk bi gannaaw monsieur le maire ma koy jëmale ci seen Cheikh Diop mi ñu dalal moom it ci biir Koki cant ak nuyoo jëmale ko ci sunu mag suñu sëriñ buñ ko fekk muy sëñ Bass Awa Ba ñuy toog suñu kilifa la sama teewaay ci daara bi mu nekk tànku njiitu réew mi muy le président Macky Sall daf ñoo yónni jiital ma ci yónne bi waaye boole ma ak sama mag koo xamante ni da koo ràññee jox ci liggéey bi dénk ko daara yi ca présidence muy soxna Awa Diop Mbacke bi ma àndal moom it mu yaayu daara ñu boole ñu liggéey eh. ci noonu ci lañu ñëwee ànd ak honorable député yi nga xamante ni ñoo bokk tarixa bi liggéey bi ñuy suñuy mag di suñuy kilifa ma ci ràññee sama xarit sama mag honorable Mame Khary Mbacké bu sëñ Moustapha Bassirou mi toog oh. noonu laa ci ràññee sunu honorable Néné Mbaye dëkk ba Mbàkke waaye noonu laay ràññee aussi honorable Fat Sène jóge ba Bambey àndoon ñun ci liggéey gannaaw honorable yooyu dañoo ànd ak ñoo xamante ni dañuy ràññee ci daara ji ñu bokk tarixa bi ma ci ràññee sama mag suñu xarit ñoo jógee ndoo ba Touba. soxna maam Asta Sidi mu sëñ Sidi mu sëñ Abdou Lahad mu gunge suñu noonu la ñuy soxna maam say Mbàkke moom it gunge jóge Touba ànd ak ñun ci liggéey bi noonu la ñu àndee ak suñu xarit suñu àndandoo ci liggéey bi muy la directrice bi yore wàllu xale yi ci ministère bi soxna jéegi jaar ci waaye aussi ñu ànd ak ki nga xamante ni moom moo yore la case des tout petits ñu koy wooyee may mi na su soxo moom it am na ànd ak ñun gunge siñu ñuy nuyu suñu xarit bi ñu àndal suñu mag soxna Ami Fall jóge ba ak Abdoulaye Khat Fall ñu limee dañuy tuum wala duñu matal waaye képp koo xamante ni ànd nga ñun cant président de la république pour jébbal si pour jébbal si ziare président de la république moom nit ñi boo demee ci biir Sénégal daara joo leen fekk mu taxaw jàppale leen ko dooleel leen ko ba mu gën a am taxawaay ci mu réew li ko waral nag dafa yem dafa yomb bi mu defee ay enquête dañoo wan ne Sénégal jamono ji ñu toll école française lépp lu muy def ci wàllum jàngale ci wàllum saytu xale yi li ko daara yi def moo ëpp loolu la résultat ñu génne ni résultat daara am maanaam li mu daara ci Sénégal ëpp na li mu école française ci Sénégal te it Sénégal mu dëkku diine ñu ni lan moo fi ëpp ñu ni musulman yi fi ëpp xam xamuñu lu dul tarixa xamuñu lu dul mouridisme xamuñu lu dul tijaaniya xamuñu lu dul laayeen loolu boo ko waxee ñetteen jëmale ci yooyu faaw sa xel dem ci wàllum jàngum alxuraan alxuraan boobu nag dañ ci dañ dañ koy jàppale dañ koy taxawu ba mu jëm kanam ndax moo tey réew mi ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi naat réew mi di ko liggéeyal kenn ku ci ne bu ñu toppee sa jaar-jaar jaar nga ci alxuraan jaar nga ci daara doo ko taxaw taxawal réew mi lim nañ ci léegi sëriñ buub ku ko xam-xam ni fii la jógee muy def am solo ci réew mi noonu laa ci mën a tubaab damaa wàcc kaamil ba pare doog a dugg école képp ku nekk xam nga ni tàggat da ngay jaar ca daara def noonu la waa xam loolu nag da xam ni wàllum njàngum alxuraan mii lu am solo la ci njàngum tubaab ndax ñun ñëpp a jaar de ba wàcc doog a dugg ba nu eggee te école ya raw nañ suñu morom. tey dañuy sant yàlla bu baax te buñ ko waree defaat dañ koy defaat te loolu ñu ñaan suñu def ko kon daara dafa am solo ci biir réew président Macky Sall da koo xam moo tax mu dénk ñu ko moo tax mu boole ñu ci liggéey bi moo tax mu ni taxaw leen ngeen gën a dëgëral daara yi gannaaw ba ñu waxee loolu lépp loo xamante ni jàppale la loo xam ne amoon na ko yéene ko ci daara yi def ni ma ren dama koy yokk dem leen ngay saytu ñaata daara moo am ci Sénégal

lépp lu ñëw ci commune bi am na wàll boo xam day dem directement ci daara yi wëlbati ko ni yéen tamit ñi ngeen yor muy wàllum jàppale jëmale ci daara yi dem leen ngeen xool seen seen besoin maanaam li ñu bëgg ngeen tegu ko comme ay politique jëmale ci ñoom ndax nit kat boo koy jàppale da xam jafe-jafe ba pare mënuñu toog Ndakaaru ci bureau yi rek xalaat ni kokki dafa manqué basal ñu indi ko li gën mooy nga ñëw ba kokki waxtaan ak ñoom laaj la li ñu soxla nga jël la nga yor tëggu ko jox leen ko loolu mooy taxawaayu état te loolu la ñu sant président nag wax dëgg yàlla ku ko xam-xam ne nitu daara la ku xam-xam ne nitu lislaam la koy xam-xam ni saa bu ñu waxee ñun ñi nga xam ne def ñoo dénk wàllum xale yi def nañu bu leen def ni lu jógee extérieur rek maanaam tubaab bi indi rek ngeen signé ko bu leen def noonu ndax ñun Sénégal dëkk diine lañu mënuñu jël lépp lu gis ne lu jógee ci liggéey bi ma namee de kàddu yu njëkk yi ma wax mooy fexe leen ba yenn yi nga xamante ne dañ koy jëlee ci bitim réew ba koo indi suñu réew du lépp moo mën a jàll jël leen temps ngeen xool ko ndax loo leen indi du ma ko signé ndax dëkk bi lépp lu ñuy wax lépp lu ñuy def dañ koy teg ci lislaam dañ koy teg ci daara muy doog a mën loolu ay waxam la démb ay waxam la tey te loolu la ñu sant ci lañ nekk damay dalal xel ñëpp di leen wax ni ministère ba de doomu daara la ka toog cee ministère ba de yore xale yi nitu daara la yaayu daara la lépp ne day néewal doole daara wala lépp loo xam ne day wàññi taxawaayu daara ci biir réew yàlla samay loxo te fu koy defee tamit yàlla bokk fekkee na ma ca mel noonu la ci président Macky Sall mel noonu la ci soxna ci képp ku nekk ci gouvernement bi mu ànd ci liggéey noonu lañ ci mel ñun ñëpp dañoo laxasu takku ni lépp luñ dooree daara rek nañ ca ne waaye lépp loo xam xamante dañ koy indi jëmale ko ci nax saayal alxuraan jëmale ko ci wàññi taxawaay daal ci biir réew président Macky Sall nee sant ko kenn te du ko validé du ko signé kon loolu dama ci jëloon kàddu yooyu rek jëmale ko ci xalif général bi jëmale ko ci daara bi wan leen suñu disponibilité suñu taxawaay suñu ànd ak yéen ndax ñun xam nañ ni lépp li fu waay def defaloo ko kenn sa bopp nga ko defal ndax l'islam bu ci waay def bu fay ba jotee ci yow lay jël kon bu soobee yàlla dinañ ci gën a taxaw dinañ gën a laxasaayu dinañ gën a ànd ak yéen nday daara yi dinañ ñëw waxtaan ak yéen ndax bu nday daara yi amee taxawaay rek taalibe yi jàng ñi jàngale seen taxawaay dina yomb kon ñun ñi nga xamante ni ñooy nday daara yi dinañ ànd laxasu xool lan moo war a dem ci daar ci daara ji lan la xale yi soxla ñu gën cee taxaw waaye borom daara yi mooy ñi jàngale seen bëgg-bëgg ak seen soxla dinañ ko jéem a saytu ànd ci ak yéen bu soobee yàlla pour taxawaay bi gën a rafet di leen sant di leen ci wax ji di bu dëngee rek ci ñun la waaye bu jubee rek suñu borom la sant naa leen baax. jërëjëf madame la ministre Fatou sa bàjjen ñëw na Aïda fa Aïda Mbodj waxal ma ko wokkal ma ko wokkal ma ko sa bàjjen ñëw ajal su ay da mbooj bàjjanam la doon kokki min ko yàgg yàgg yàgg yàgg na fay ñëw ci daara bi madame Mbaye au conseil de la république moom itam taxawaayam ca Mbakke ca ndey daara lépp rafet dañoo wax ni sëñ bu daf ma leeral léegi di ma télévision ITV moom mooy jël jox seen tiiw yi ñu di ko jàllale direct kooku moom itam mat naa gërëm mat naa sant kon sëñ bi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, ñu ngi xamal mbokk yi ne leen kàddu gi nga xam ne bii moom la ñu war a jël mënaguñ koo jël ndax waxtoom dafa jotagul waaye nag ndem soxna si dafa nekk ci. ay yitte dañ ne naa ko tontu ci lu gàtt sant ko jottali ko ay cant ak ay ngërëm su ko defee waxtu bi ñu war a wax li nga xam ne nii dëgg dëgg moo nu concerné ci wàllu daara ji ak lu ci aju su boobaa ñu bokkoo euh, euh, soxna Fatou Diané ñu ngi lay nuyu di lay dollawaat nuyoo ci turu sëñ Maxtaar ak njabootu daara ji yëpp di am kontaan te ak mbégte sa teewaay ak kàddu yi yi nga xam ne nii yëkkati ko te muy kàddu yoo xam ne nii képp koo kii da ngaa yàgg a déglu wax da nga yoo xam ne nii ci sa xol nga ko jëlee ndax wax moom su fekkee ne dafa jóge ci xol ci xol lay delluwaat wax la yu am solo. yu sori ci ñun lool dégg nit ñi lu bëree bëri kon nag yal na la yàlla fay ña ngi lay nuyu du nuyu tamit ah, président de la république bi nga xam ne nii moo la fi yabal nga ñëw fii ci turam ànd ak délégation bi nga àndal ci jiital suñ gouverneur bu baax bii danaa ci dégg si waat jottali ko nuyooyu sëñ bi moom président ak ay cattam ak ay ngërëmam ndax moom ak soxnaam nag moom ak soxnaam ak euh, monsieur Amadou Ba premier ministre ndax ñoom ñëpp ñu ngi jàpp ci daara ji ci mboolem fànn yëpp loolu nag soo teewee danañ la ko wax ci nga jot ñu ko président yi ne ko sëñ bi ma ngi koy sant ma ngi koy gërëm ma ngi koy ñaanal moom ak soxnaam ak Ousseyn Amadou Ba mi nga xam ne nii mooy premier ministre seen taxawaay ci daara sëñ bi nee na gis na ko sant na leen gërëm na leen mu ngi leen di ñaanal yàlla. leneen li ci topp tamit bëgg tamit nga waxal nu président sant ay canti sëñ bi ak ay ngërëmam. ci monsieur le gouverneur mi nga xam ne nii moo jiite région Louga ak madame le préfet mi nga xam ne nii moo nekk ci gannaawam ak le sous-préfet bu Kokki ak chef de service yi nga xam ne nii yëpp ñoo ngi suuf gouverneur ci seen taxawaay li nga xam ne ni moom la président li nga xam ne ni moom la président santaane wax ko dig na ko lu jëm ci wàllu jàppale daal loolu dañ la ko seede lépp lu leen war ñoo la waaye di seedeel gouverneur it ne ko chef de service nga xam ne nii da nga leen a convoqué woon woo wax leen nii laa bëgg ngeen taxawee ko ci deuxième daara bi ñu lay seedal gouverneur na la ñoom ñëpp lépp loo xam ne nii war nañ koo def lépp def nañu moo xam Senelec la moo xam Sonatel la moo xam ANAS la moo xam sapeur pompier moo xam gendarmerie la moo xam police la moo xam aide alimentaire la moo xam UGC la te ñooñu ñi ngi ñaan président lu mu leen jox na ko yokk ndax ñooñu day ñun biñ duggee ko ba léegi mbalit dafay jeex moo xam lu jëm ci wàllu santé la moo xam eau de forêt la moo xam élevage la moo xam service d'hygiène la moo xam CNO la moo xam offort la moo xam douane la moo xam presse la ñoom ñëpp na ñoom ñëpp gouverneur ñu ngi lay seedeel ci mbooloo mi ne lépp loo xam ni luñ waroon a taxawee taxaw nañ loolu ñu waxoon def nañ ba def lu kawee li nga leen santoon kon ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di wax nañ ne ah loolu gannaaw bi mu jàllee tamit am na tamit euh, fokk danañ sant sëñ Omar Sow mooy directeur de de l'urbanisme ndax ay at nii moom base bi ak li aj ñëpp moo koy def ngir yàlla kon kooku yal na ko yàlla dëgëral yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla aar yal na ko yàlla wat di la wax tamit monsieur le ministre euh, madame le ministre ne tamit. Serigne Souhaïbou Kébé daaw moom la ministre de l'intérieur yebaloon ngir mu taxaw taxawaay ak joxe ndimbalam andi noonu tamit nan ko defoon daaw tamit moom kooku tamit ñëwaat na kon ñu ngi mu jottaloon suñu sant ak suñu ngërëm ci ministre bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm tamit chef de village bi muy chef. Diop Cheikh Cheikh euh, Diop ci taxawaayam ci daara ji ak li muy jëf tey da cee bokk waaye xam ne de cee bokk ba pare te di ko jëf di sant tamit ñi nga xam euh, monsieur le maire mi nga xam mooy maire Koki ak mboolem maire yi fi nekk ñëpp di leen sant di leen gërëm di leen xam ne kàddu gi di incha allah ca kanam lay doon lii dañ ne woon dañuy. soxna si daa nekk ci ay yitte foofu dañ koy bàyyi ñu dem rek waaye si di kanamee kàddu yi xam moom la seen wax danañ ko jot ci mbooloo nañ ko waxee noppi leen bu soobee yàlla kon soxna si nag lay sant wax mbooloo mi ne leen délégation bi suñ jógee nañ leen may ñoom surtout nag li ñu gën a wax mooy ne si am na ay carte yoo xam ne ni président da koo mu war koo waxanteeg sëñ bi ànd ak teewaayu gouverneur ak ñoom ñi ci seen danañ ko ba ñu ko def fee ca résidence ba moom sëñ bi lu lu ma ñaari minutes génn mu jeex ñu ñaan délégation bépp nag ñu toog dégg leen di sant tamit di sant tamit di gërëm tamit monsieur Mbéri Sylla mi nga xam mooy conseil départemental bu Louga ci taxawaayam ci daara ji guddi ak bëccëg ak li muy jëm bépp projet bu jóg bu nekk rek dana jox daara ji wàllam tamit suñu jigéen bu baax bii madame Aïda Mbodj fàttewuñ suñu bii madame Aïda te su ma sañoon liñ doon wax liñ doon wax dana discours bi ñu dëgg da koy fekk ci taxawaay jamono bi mu yoree li mu yor moo rawoon ak gaynde ci daal ci teraanga ju nekk andi na defoon ndar nañu waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu euh, yi rafet na ñu ngi ñaan mbooloo bi yëpp daal toog euh, Serigne bi gisante monsieur le ci quelque euh, minute ñu ngi ñaan mbooloo bi ñu toog liggéey bi day wéy ñu dalal délégation soxna Alxaajatu Bintu Thiaw teew na ci jataay bi. di njiital muassasa Aïcha Oumoul Mouminine ñu ngi koy dalal ci daaray Koki di ko ñaanal ñu ngi dalal délégation bu Cheikh Alioune Souané yabal na fi délégation bu ama am solo Cheikh Alioune Souané ak daara ji nag kenn dootu ko nettaleeti kenn ñoo ngi dalal ah, docteur ah, Alhaji Abdourahmane Diouf ñëw na fi ànd ak délégation bu ama am solo di président Awalé ñu tudd ci rek professeur Serigne naa Bousso ñu ngi koy dalal sëñ bi mi ngi koy ñaanal di rafetlu taxawaayam ci daara ak nit daara ñoo ngi dalal soxna Aïssatou Mbodj honorable député monsieur le ministre soxna Aïssatou Mbodj Serigne Fallou jaar na ci léegi digganteem ak daara ji euh, lu weesu fanweeri at la ba tey loxoom jugul ci daara ji mi ngi rafet taxawa rafet lu taxawaayam sëriñ bi mi ngi koy ñaanal ñoo ngi dalal délégation euh, ahbabur rasul taha dañu teew ci daara ji euh, indi fi ay kaamil yu bare bare lu jege ñetti junni kaamil da ñetti téeméeri kaamil dañ ko indi woon ci daara ji tombeek bis bi ci njiital soxna Fatoumata Cissé ak délégation bu am solo bi mu àndal ñoo ngi dalal délégation sàmm sunu ngor ci présidente euh, soxna soxna Aram Gaye Diop ñëw nañ ci daara ji indi fi ñetti junni kaye yoo xam ne nataalu Serigne Ahmad Sakhir Lo moo ci nekk ak lenn ci dundam ci feg bi pour xale yi di ko jàngee kon ñu leen di jaajëfal di leen ñaanal ñoo ngi dalal délégation euh, euh, rabitatul aïma wa duat fil islam muy ligue des imams et prédicateurs du Sénégal ci jiitalu délégation bi Serigne Mansour Samb teew na ci jotaay bi ànd ak délégation bu ama am solo ci ndigalu secrétaire général bi de al imam Ahmad Dame Ndiaye euh, teew na ci jotaay bi euh, jamiyatul mustaqbal nga xam ni kii nekk ca bopp ba kenn la ci daara ji muy docteur Moustapha Wayel teew nañ fi ànd ak délégation bu ama am solo délégation bu jógee fële jumaa yi kër si cité kër Damel ci Dakar teew nañ fi ak délégation bu am solo ci njiital Serigne Alhassane Seck euh, ak Serigne Massamba Diop bi nga xam ne mooy secrétaire général mbootaay gi ak taxawaay bu am solo ci daara ji ñoo ngi dalal délégation Muntadal Fikri wa Saqaafa teew nañ fii ci njiitalu docteur Cheikh Samb ak uh, Oustaz Ibrahima Diop Oustaz Mohamed Diouf ñëw nañ ci daara ji andi fi ay enveloppe yu ama am solo ñoo ngi dalal délégation bi nga xam ne ñoo jóge institut islamique bu Dakar ci Oustaz Mohamed Diouf moom moo ko teewal uh, docteur tey docteur Thierno Ka ci eh, ci ndigalu docteur Thierno moom moo fi daan teew te yabal na leen fi ñu ànd ak délégation bu ama am solo ak enveloppe yu tuur ñii di ko ci daara ji ñu ngi di sant di leen gërëm di leen ñaanal euh, ñu ngi dalal autorité di wax ci bi nekk ci réew mi ci njiital euh, Serigne Racine Ba teew nañ ci daara ji sëñ bi gis na seen i ndimbal ak seen taxawaay ñu ngi leen di ñaanal. ñoo ngi dalal Serigne Abdourahim Seck jóge ba Thiénaba Kajoor ànd ak bu ama am solo bokk na ca bopp ba Serigne Talla Diagne di maire ba ñu leen di dalal Serigne bi gis na seen taxawaay ñu leen di ñaanal. ñoo ngi dalal Serigne Mara Ndiaye teew na ci jataay bi. ñoo ngi dalal Serigne Pape Moutala Seck bu Thiénaba Kajoor di xalifa Serigne Madické Seck teew na ci jotaay bi di kenn ci daara ji bi ñu koy sant di ko ñaanal. Sakkumullah ana xayri desaay ñuy gërëm baax a baax délégation bi nga xam ne moo jëlee bi ci réew mi yëpp ku ko gisee nag moom mooy inspecteur Babacar Samb. mu ngi ànd ak Moussa Niang sëñ Moussa Niang ak Mariam Sow ñoom nag ñooy fi ndimbal bu solo boo xam ne nekk nañu mat fukki tonn ceeb ak junney litre diwlin ak tonn saabu ak ordre bare bari ak un million de francs yu joxe yal yàlla fay leen yu baax a baax ngeen ñuy le monsieur ministre yëpp waa daara njàmbur bu Fallou Daw jiite nekk di ko jaameen ñoo fi waa PDS bu Louga Fallou Galas moo jiite leen ñu ngi fi Alaaji Mokhtar Ndiaye Mokhtar Ndiaye Mokhtar Ndiaye wala Mokhtar Ndiaye Ndiaye Touba Ndiaye alhamdulilah yàlla na yàlla fay leen fi Oustaz Aliou Badara Ndiaye moo leen jiite Cheikh Anta Ndiaye Alquran jóge Dakar ñëw na waa Daara Jolof Alaaji Jaw ak ñoom Pape Abdoulaye Niang bu Mburo ñëw nañ fi yàlla yàlla fay nañ ñëw waa Caraba Bassas Alaaji Mokhtar Diop te leen ñu ngi fi waa Thiamène Waalo Imam Alaaji Tabara Thiam jiite leen ñu ngi fi waa Ñambur informatique Baye Dame Sula jiite leen ñu fi waa mairie bu Pété Mor May Sam te ñoom tam ñu fi ngeen di gërëm baax a baax yàlla yàlla fay leen délégation bu jugee Guet Ardo ci turu xalif ba alaaji Mouhamadou Aziza Ba mi ngi fi mooy chef délégation bi ànd ak Cheikh Sadibou Ba ak Cheikh Issa Cheikh Cheikh Issa Ba ñu leen baax a baax alhamdulilah rabbil alamin délégation bi nga xamante ni délégation bi nga xam ne Serigne

teew nañ fi indi ndimbal yu am am solo jox nañ ko sëriñ bi ñu ngi leen di sant di leen ñaanal ci jiital alaaji Seex Jeng ak délégation bu am solo bi mu àndal yëpp délégation marché Tilène teew nañ ci jataay bi ak ndimbal yu am am solo yóbbu nañ ko ci si bi ci njiital alaaji Kaatul Touré ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di dalal sëriñ Mara mooy xalifa alaaji mëgay njare ca fële ca njare wàq ñu ngi koy dalal si bi mu ngi koy ñaanal jërëjëf euh, sëriñ Cheikh mbokk yi ñu ngi sàpp ci commission bi yor wàllu